leen ak jàmm te ngeen abonné te like ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ne ngir dab seen bànneex yow mi am loo bëgg siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkool ak Tivaouane 24 ci numéro yi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بوكي جولي بوكي طالبي بوكي باخو دي سيتان شين بيغا خامني موي 24 بيغا خامني بن سلوغان لا نام موي من حسن الانسان المرء تركه ما لا يغني تاي ني نيك في تي غرا غراند موسكي دي تياوان جمعة جمعة جيغا خامني تبارك الله ديبي 14 سبتمبر 2020 لا نيو لانسي ci jele ko ci ndigalu ki nga xamni moy al khalifa Serigne babakar Sy Mouhamadoul Mansour yalla yalla yàlla ko fi yalla yalla yàlla ko yalla yalla yagal ko fi tay nak tabarakallah boba ak legi nit ñi ñoo ngi joxe sen xaalis def nañ ñaar yoon euh, plateau nit ñaa ngi joxe par Wave di joxe par Orange Money ñi di joxe par liquide di def ci jumaa ji tey nag kilifa yi daan ni jot na ñi nga xamni dañ doon joxe sen alal ci jumaa ji ñu xam nak sen alal fan lañ ko def motax tay ñu wote won benn visite gis boo xam ne dañ ko doon def fii ci jumaa ji ngir nag wanaat nit ñi liggéey bi fan la toll ak naka lañ koy defee ak ci yan pàcc lañ koy defee mu mel ni nag tey boo fi ñëwee dangay xam ni non projet bi projet bu extraordinaire la ci niveau bi boo xoolee ak ni nga xam ne noonu ñu ko liggéeyee ci wàllu taar ak ci ay pàcc ci xarañte gi nga xam ni yaa ngi koy gis ci ni ñu ko liggéeyee. douche donc bo fa duggé da ngay xamni ni c'est extraordinaire loolu nak ñaanu mam Cheikh El Hadj Malick la waaye pasteefu julit ñepp la ñi nga xamni def nañ ci sen seen dërëm waaye pasteefu la khalif général des Tidiane la Serigne Babacar si mohamdoul Mansour mom mi nga xamni mom mo lance travaux bi Tivaouane 24 nak ñewon fi tay and ko ak yeen gis ngeen visite bi bi ñu def nañu plateau bu ama am solo and ko pa Makhtar kebe mu jité ko waye and ko njabot gi ñu daldi di wan nit ñi waxat nit ñi fi nga xamni fi lañu def sen khalis ak naka lañ ko defee ak bu paree it am na la nar a mel mu mel ni rek loolu tamit soññ la waaye tamit ñeex la waaye tamit cawarte lay jox ñi nga xam ni ñoom ñooy jullit ñi nga xam ni bëgg nañoo def seen dërëm ci jumaa ji ñu gën am cawarte gën a def ndax danañu xam ni kat lépp luñ fi def fañ ñu ko doon fañ fañ ko laajal fa lañ koy def te mooy jumaa yi Seydil Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu tey daal boo duggee si jumaa ji da ngay xam ni tabaarakallahu oh, jumaa ji am na beneen xar kanam jumaa ji Euh, li nga xam ni moom la ñu wax ni mooy jumaa bi dàq ci Afrique de lu l'Ouest boo duggee ci biir jumaa ji rek da ngay gis loolu xam ni lii réalité la ndax jumaa ji pareegul waaye tabaarakallahu boo fi duggee rek ci image boo fi duggee ci dayo waaye ci qualité bi nga xam ni moom la ñu liggéeyee jumaa ji sa xol dafay sedd di ñaanal ñi nga xam ni def nañ ci seen dërëm yëpp ki def fukki dërëm ba ki def milliard ñëpp ñoo yem indallaahi taala ki def fukki dërëm fukki dërëm la am moo tax mu def ko nit mënul def lu mu amul waaye ki def milliard it la am moo tax mu def ko kon ñëpp ñoo yem fay indallaahi taala yal ñu yàlla fayal suñu yal nañu yàlla fayal kilifa yi yal nañu yàlla fayal ñu ci def seen dërëm ñëpp di ñaan yàlla nit ñu ko commencé yal nañ ko yeggale foofu ànd koog la xalif général de Tidiane ak njabootu Seydil Hadji Malick yëpp julli fii ci jumaa ji bi jaay sallallahu alayhi wa sallam Tivaouane 24 dina ci ànd ak yéen ci lépp ñoo ngi am mbégte bu baax a baax daal tey ñaanal ñëpp di wax nit ñi nag jumaa ji pareegul képp ku mën di def ci Orange Money wala nga mën di def par Wave def ko te xam ni njëriñ rek na man banaa lillaahi masjidan banallaahu law xasarun fil janna képp koo xam ni tabaxal nga suñu borom subhaanahu wa taala jàkka wala jumaa ci biir ci biir àdduna yàlla dina la ko defalal ca ca ca aljana incha allah dana la fa defalal kër ca aljana pale ca aljana tabaarakallaahu kon nag mbokk yi nañuy def rek yàlla dinu fay ñuy def rek yàlla dinu fay ci barke yonent bi ak barke jàkka ak juma ba keroog ñuy inauguré ànd koog njaboot gi ànd koog xalifa bi mbégte maa ngoog ñi ñaan yàlla gàmm gi ñu jëm yàlla nañ ko def ak jàmm fekke ko ak jàmm di ñaanal ñëpp di leen wax ku abonné gul ci Tivaouane 24 nga daal di abonné aleykum